déglu di xëy di ñu déglu di yéen di ñu déglu di leen di bége. waaw di dama laa dagg. waaw ndax samay partenaire waaw dinaa leen gërëm nag ci kanam. waaw ndax feccum liir bu neexee. waaw day jaar tey jëmbat. jeex na waaw. dama lay bàyyi nga doxal d'abord. démb am na fu ñu tolloo laata may ñëw ci. Mhm. sa canal magasin. laata may ñëw ci Senwave. laata may ñëw ci établissement waa kër Serigne tubaa fale et frère. laata may ñëw ci Optique Vision Plus Sénégal. Mhm. laata may ñëw ci moutarde chef ayda mhm. laata may ñëw ci Wave. dama lay bàyyi nga doxal élément bu njëkk bi. ndaw sax nax na waaja. fi ñu tolloon mooy. waaw fi ñu joxante numéro. waaw léegi dañ lay defal benn affaire. waaw mhm. nañ dellu si lëf ci ginnaaw. waaw ñu doxal déglu ko. ma jël rond point bi def demi delluwaat ci biir hôpital bi. ñëw ba si buntu neurologie gaare yëkki trente mille francs fekk femme bi daf ma nekk moom yor na dix mil te mu ngi yor dix mille yi si loxoom ak euh, bon bon analyse bi ma yëkki trente mille franc joxo ko nga def fii rajo bi mu ne waa kon jëlal sama jërëjëf waay yàlla na la yàlla fay léegi jëlal sama numéro boo saa yoo kiiwee rek saa saa lu ci mënti am rek ma woo ma jël numéro bi ma ne ko parce que mën naa fàtte xaar ah, ma ma woo comme ça nga yor sama numéro lu ci mënti am rek nga wax ma parce que boobu maa ngi xalaat xale bi mu si ci situation bu critique daal ma raccroché dem dugg si biir neurologie man ma génnaat ak sama oto dem bi may yëg si si kër gi ba si ay midi une yooyu treize heures si la ma woow ne ma ah kii def nañu rajo bi ba pare de mais daal xale bi il faut ñu defal ko opération léegi docteur bi ko doon defal opération bi moom femme bi nee na moom moom mu ngi tudd Oumy Thiam Oumy Thiam la ma wax noonu la tudd numéro am rek mu ngi nekk soixante-dix 674 ba tey jii nii bu ma ko woowee dama koy dama jox mu ne ma am na femme am na kii sa numéro jox naa ko médecin bi médecin bi la kii bi bi war a def opération bi mu ngi tudd madame Sale Seynabou Cissé la tudd mu ne ko ah, mu ne waaw eh, jox naa ko sa numéro pour que mu mu woo la pour expliquer la affaire bi mu ne ko waaw ah, d'accord nga man nag j'ai pas fait attention parce que moom femme bi voix am niroo na trop ak voix médecin bi ki mu wax ne mooy médecin bi. xalaas. nga. li tax waaw li tax mu koy nax. waa ji xam naa dafa sensible ci xale. mu gis ni xale bi dafa jóge premier érage daañu daanu mën ko bopp xale bi dafa am ay kayu maanaam deret bu woyu bu nekk ci bopp bi. ñu war ko opérer. waa ji am yërmande defal ko loolu. Mhm. yóbbuwaat ko bu hôpital ba. Mhm. ñu dem ci loo ci topp. waaw déglul waa ji. femme immédiatement bi ñu raccroché rek femme bi woo ma si benn numéro bu 76 786 89 97. mais bi ma jotee femme boobu mu ne ma waaw yow sëñ bi ñu ngi lay gërëm bu baax femme bi dafa ñëw fii si suba amul lu mu fayee. nee na mu génn si hôpital bi dajaax yow nga doon yóbbu sa doomam nga dimbale ko te yàlla tax affaire yooyu ñu ngi lay remercier bu baax léegi man maa doon def eh, kii interpréter résultat wu scanner bi mais xale bi il faut ñu defal ko opération tey léegi nag comme moom amul moyen dama bëggoon nga jàppale ko rek te yàlla tax àggali sa tuyaaba quoi ma ne ko ah, lan moo ko jot parce que man <laughs> si milieu santé laay liggéey fa la ma dëkk jot mu ne ma noo si bopp bi mu daanoo dafa am benn caillot de sang mu nekk si bopp bi boo xam ne il faut que ñu dindi ko buñ ko dindiwul xale bi mën na si jóge faatu léegi nag qu'est-ce qu'il faut mu ne ma opération bi normalement quatre cent mille francs la mais dinañ ko ko defal cas social fii si au niveau de l'hôpital mais lenn loo xamante ne moom nañu ko def cas sociale mooy kit d'opération bi le kit d'opération bi nag moom il faut mu jëndoo ko pour ñu mën ko defal opération bi tey mu ne ko ah bon mu ne mu ne kit opération bi ñaata la mu ne ma soixante mille franc la mais moom déposé na fi dix mille franc mu ne ko waaw loolu amul problème léegi nan laa mën def ba ngeen jot si mën naa ko andi wala waaw mu ne boo ko mënee yónnee mën nga ko yónnee sama numéro wala nga yónnee ko si numéro moom mu andi fay wala affaire yooyu comme yor ma woon orange mu ne mu jël sama benn euh, jarbaat uh, mu jël yónneel ma orange money bi si numéro bi ñu jox ma numéro bi ñu yónnee leen orange money bi cinquante mille ñu dem pour def opération bi femme bi ne ma maa ngi dem di dugg bloc ma jotaat xam naa fii ak dix huit heures daal peut jot fekk ñu pare affaire yooyu noonu. mu fay portable boobu jotaatuma femme bi jotaatuma ko mu bàyyi dix yooyu si la ma moom femme bi woo madame Sale ne ma ne ma def nañ opération bi alhamdulilah lépp réussir na. muy le même dimanche euh, lépp réussir na daal mais euh, kii léegi xale bi mënagul génn réanimation il faut mu recouvrir tuuti balaa ñu koy génnee mais léegi am na ordonnance mu war a jël d'une valeur de vingt sept mille francs yoo xamante ne def ko war a jël muy pour pour dëkkam comme mënagul lekk affaire yooyu ñuy defal ko ay perfusion affaire yooyu noonu yëpp ko ah bon mu ne ma ne ko ok boo ko mënee dimbali daal nga jàppale ko rek problème moom mu raccroché ay quelques minutes après femme bi woo ma expliqué waat ma même chose ma ne ko waaw dinaa leen dinaa dinaa si jàpp yónnee ko wéy vingt sept mille francs no trente mille sax laa leen yónnee daal ma trente mille laa leen yónnee pour frais yooyu pour en cas buñ ko retiré ñu ne naa ko yónnee si numéro numéro euh, kii pharmacien bi parce que pharmacien bi daf leen jox pharmacien bi daf leen jox garab yi ba pare léegi nag euh, il faut ñu fay ko balaa balaa muy def kees daal minuit madame Diop Rokhaya Kanté moom moo nekk pharmacienne bi moom moom si boppam ñu jox ko sama numéro mu wooma si numéro bu 76 730 52 mu wooma expliqué ba doyal euh, ne ma léegi nag il faut nga dimbale ñu yónnee ñu kii bi parce que man dama war a def kees ki ma war a relever ñëw na ba pare mu ne ko ah ne waaw mu ne ko ok moo ma wéyif ko ko moom femme mu ne ma da nga koy yónnee si sama numéro 76 730 32 mais def ko par code nga def ko orange mu ne par cote si si turu Ndiaga Diop mooy vigile bi nekk si buntu dina ko mën a dem retireel ñu ko pour andil ñu ko orange mu ne par cote 30 000 mu dem ñu jël ko récupérer ko après mu ne jot nañ ci merci beaucoup jërëjëf waay yàlla na la yàlla fay saa hôpital li ngay def nii moom hôpital bi ñu fi nekk sonn dañu bëri te boo xamee ne man nga leen dimbale nga dimbale leen wala fii moom loo fi soxla rek nga wax ñu ko incha allah dinañ si jàpp affaire yooyu. Euh, le lundi femme yi woowaan ma moom si boppam moom ummi caam boobu moom mi ne doomam moo feebar woowaan ma ne ma doomam euh, dafa kii nu mu tudd dañ ko dafa war a jënd ay couche ay nangam nangam affaire yooyu ne ma léegi couche yi à peu treize mille couches yi mu war a jënd garab yi mu yeneen beneen ordonnance bu mu war a jënd treize mille franc boo mu ma ko mënee ba ma si mënee dimbali daal dina baax trop fi mu nekk nii aw ma kenn ku ma dimbali samay mbokk yi ñu ngi taxaw di ma seetaan mën nañ ma dimbali mais defuñu ko ne waaw dinañ si jàpp. Njaay. booy bi de xale ba daal ci ñiy dégloo ak yow mi xale baa ngi hôpital ñu opéré ba pare. waa ji moom li mu ci daj yëpp lu tax demul xooli xale ba. waaw xaaral déglu rek. benn bi sopp mooy sa waa ji femme bi tooñ na ko waaye moom tooñ nañu. tooñ nañu wala tooñ na bopp. publicité yaa ngi mel ne tulleeg male orange mën a judul jeex. ah mais noonu la rek ah loolu du garawul ah wax na wax na yooyu tamit wax na tegoo te wax na yooyu yëpp. xam nga xam nga wax na pharmacie dafa wax pharmacie rek sama xel dem ci docteur mbay bi nekk pharmacie Atlantique. waaw wakam lo du publicité waaw pharmacie docteur Mbeng du ak ba ca yoof du publicité sama pharmacie tanta jooju ndayaram Mbeng ma nga ca yof mo gëna garab ci rew mi ah déglu de de de mo garab ah dé bu ñu wax loolu ñu waxul sama garab pharmacie pharmacie pharmacie docteur Mbeng ban xala ba nga fee wax baan léegi ñu dem waaw déglu waxatee ay ki ay plateforme transfert waaw déglu déglu déglu wéew dama plateforme bi bëgg tuddu nak gëna fi juk ngaawu transfert ngaawu ngaawu transfert <laughs> eh, doxalal déglul. léegi na ba sama jabar na ma ah, xam naa ne yaa ngi si commencé xam am xel ñaar quoi parce que affaire yi dafa dafa commencé am lu mu doon niru quoi sama jabar yaa ngi si commencé am xel ñaar mais yëgale sa tuyaaba rek xam nga comme def nga ko ba mu yëg si fii continuer moom ñoom bu leen si seet yow defal rek te yàlla tax xale bi feebar ko xale bi daf ma femme bi daf ma ne xale bi dafa dem ba commencé mënatul wax. xam nga lundi si ngoon famille woo ma ne ma xam naa normalement tey mardi suba mardi si lañ ko war a lañ ko war a génne si saal yi pour que mu pour que mu mu commencé recevoir visite ma ne ko waa man maa ngi dëkk Wakaam soriwuma dinaa fexe ñëw fa ko bu génne si saal yi quoi mu ne ma waaw mu ne ma mardi mardi mu ne ma génnewuñu ko si saali xam nga dañ ne nañ xaar ba mercredi mercredi matin muy démb ma ma yeewu gis appel en absence madame Saleh boobu ne moom moo doon def opération bi euh, ak appel en absence su femme bi trente minutes après moom umi moom umi caam bi ma ko gisee nag app peu près ay trente minutes yooyu ma ma bi may jógee ma xool woote moom woot kii laa njëkk woo madame Sallé laa njëkk woo mu ngi nekk maa ngi entendre benn bruit mu nekk mel ni ku nekk di seetaan télé mu ne ma mu hôpital nii mais woowal femme bi daal parce que j'ai une mauvaise nouvelle ma ne ko ah, mu ne ma waa parce que xale bi xale bi femme bi xale bi dafa mujj décédé mu ne ko ah bon mu ne mu ne ko mais comment yow danga ma waxoon ne opération buñ ko defee a bopp bi dina affaire yi dina tane mu ne ma non non dafa mujj décédé quoi woo ko quoi wool femme bi ma ne ko ok amul problème ko woo tout de suite après bi ma raccroché ma woo femme bi si numéro am moom Oumy Thiam bi ma ko woowee mu ne ma mu ne commencé di jooy mais maa ngi dégg même bruit télé bi ma doon dégg bi may wax a fàmbale moom laa doon dégg. mu ne dañu dem fi mu nekk dama sonn parce que xale bi mujj na gaañu ñii nekk dañ ma doon nax rek ba dama wax ne xale bi tànn na mais fekk tànnewul ba finalement mujj na décédé quoi man mën naa ñëw fekk la fan fan ngeen nekk ne yéen a ngi hôpital fan wala ñi mu ne ne man ñibbi naa maa ngi Kër Masaar nii mais euh, ndijaayu xale bi ak sama yeneen kii ñu ngi noonu di dem di jëli femme bi di am di dem jëli kooru kooru xale bi fële hôpital Fann defe naa ñu ngi si yoon bi sax ma ne ko moom mën naa am numéro man comme ça ma dem hôpital Fann fekk leen foofu mu ne ma waa jëlal jëlal numéro bi nga nga woo ko ma woote mu jox ma benn numéro 77 625 98. ma woote si numéro bi ba sonn kenn jëlul ma xaar ba ay une heure après ma woote si numéro bi jot benn maire. benn maire buy làkk pulaar maire bi maire bi expliqué ma euh, di wax déggu déggul li may wax man tamit déggu dégguma li muy wax comme sama jabar pulaar la ma jël ko jox ko mu mu mu mu déglu mu waxaa maire bi maire bi ne mu ngi moom mu ngi wuru soogi mu ne ko ndax dafa xam ku tudd Oumy Thiam mu ne ko déedéet man mu xaw ma sax kenn ku dëkk dakaar bay xam ku tudd Oumy Thiam dafa dafa am lu gars wax. waaw ñu ne un crime n'est jamais parfait. lii kaa kaa gis nga te waa ji kat dafa demoon Albert waaye yóbbu doomam di génn femme bi ah, kar ko yor doomam. mun ko yóbbaale ma ci biir oto bi ñuy waxtaan mun ko sama doom dafa jóge trois de premier étage daanu bopp bi toj dañ ko war a opérer yoruma xaalis jooy ci oto ba ngang-ngang waa ji def demi indiwaat ko hôpital fayal ko scanner fala la affaire yi tàmbalee. Mhm. dañ koy opérer waa ji yónnee damay lii. waa ji yónnee fii moom mooy. mun ko man li ma ci comprendre mooy. waaw femme bi waxul dëgg. waaw mhm. ki mu ne mooy médecin bi euh, bi ko war a opérer du médecin bu dëgg. est-ce que du moom sax ca boppam. Euh, ki ñu ne mooy borom. pharmacie bi est-ce que du ndaw si ca boppam. moom ba non wala ñu ànd rek. Mhm. Mhm. mais histoire bi daanoogul de. daanoogul de dama ko sax wàññi. mais fi mu nii wax na ko damay dem ca dëj ba waa jéem a woo affaire yooyu mu ne ñu Kaolack la ñuy la la ñuy suul xale bi kabatoo ki fañ denc papaam. léegi nag denc ne ko pare ma ngi koy dóoraat démb ci guddi laa wax de. fam bi ngay dégg muy wax ak waa ji déglu allo waaw umu na nga def waaw waaw yónnee la numéro sama jarbaat bi sa waaw waaw baax na waaw mom la jox ki 150 cinquante pour mu jox waaw euh, boo yónnee boo rek après ngeen coordonné waaw d'accord incha allah ok merci jërëjëf yàlla la yàlla ma dama lay borom xam ngi dama lay ñaanal rek lépp li nga bëgg yàlla ko yàlla defal waaw xaalis mooy tax nit du kon ñu bëri duñ dem waaye nag di yàlla ndogal kenn mu ko dara ndax moo ñu bind ñu yëpp fan ngeen ko fan ngeen mujjee enterré ban cimetière non kabato mooy kawlak après kawlak bi foofu lañ dem kabato mooy suñu village kabato waaw waaw ok foofu ok waaw foofu lañ foofu lañ papa waaw Ah, okay. Yeah. Ah, en koy sih si Turun api bala la dong nga ne naka Aida Aida Ba Aida Ba waaw nañ koy fasale si ñaan waaw inshallah waaw di courage boo ñëwee nga woo ñas rek amul benn problème su ma ñëwee rek damay ñëw ba wakam ñëw seet si la inshallah waaw allo waaw allo waaw nga def ngi ah waaw dama gis numéro euh, dama doon liggéey nii quoi daal di gis ñu ooma si numéro bi léegi léegi nii. man la Oumy kii moo ñu ah, ah ah ok ok sama nijaay. Ah, ah waaw si gindikaale nga baal eh, ñu àq de si gindikaale. waaw waaw effectivement. ñu ngi lay soutenir bu baax a baax a baax massa massa bu wér wér. ah dëgg la dëgg si si si ci mm, mm. mais léegi man nii dama xaw a jàpp ni nii tuuti léegi man euh, di si ngoon dinaa la oo c'est parce que euh, foo nekkee actuellement foo nekkee actuellement nii ci Kaolack waaw léegi man nii euh, comme man damay am problème souvent nii te aussi que moto laa nekk léegi yow kañ nga ñëw Dakar waaw léegi yow toute façon saa boo dikkee rek incha allah rabi suñu fee si et même euh, c'est comme moom tamit dafa war a voyager tey si ngoon je ne sais pas waaw waaw waaw moom tey si ngoon la war a voyager. ok ok ok ok léegi man ni yow boo ñëwee comme am nga numéro bi rek léegi yow euh, mën ma oo tu léegi bu ñu gisee incha allah rabi su toramee merci beaucoup dikkee rek euh, ci nga def ma signe man foo mënti nekk comme man moto laa yore foo mënti nekk ma fekk ah, merci beaucoup. ok jërëjëf waay. xam nga lii lii la. démb la xam nga ndaw sànq kakabatoo ki ah, ci li mu wax ci li mu wax. denc nañ xale xale bi dañ ko war a dëj nag ji euh, pour dóoraat ko cent cinquante mille waa ji ko boole naa sama jarbaat puisque waa ji ni dóor de États-Unis la jóge day day dellu. Mm-hmm. mu mu mu ko coow li. jarbaatam bii. parce que waa ji day dellu léegi nag jarbaatam bi muy continuer mission bi parce que ndaw si nee waa jarbaatam nee na ko ay envoyé xaalis ak yooyu moom du ma ci dugg baal soo ñëwee Dakar man ñu xool fu ñuy daje ma jox la ko. mais ba yàqu na que mi ngi ñuy dégg. waaw ah léegi léegi léegi Ndiaye dama lay jox benn statistique. waa ji ndaw si xale bi. Mm-hmm. dee na lu mat fukki yoon ak juróom-benn. Mm-hmm. feebar na lu mat deux cent fois. Mm-hmm. principal. Mhm. Nabil Choucair. daan teg CTO. ba ci poste de santé yi. Mhm. xale bi entraîné na fa. Mhm. dee na fa. te deewul moom te deewul ba ci rond point Casamance. te xale bi su duggee sa oto day dee deelu xale bi ci boppam mu ngi ci. génn xale bi dilkat la nga am waaw xale bi day di dee deelu tëdd ci kaw yaay ji ñu yoggo rek. ñu yàcc ñu yasar ci kaw yaay ji. entraîné ko ci xale bi ba mu ba mu ba mu mokkal. en tout cas en tout daal dee na daal fukki yoon ak juróom xam naa ne fukki yoon juróom benn ba ah ginnaaw dañoo jëm ci weekend. waaw jaaykatu oto yi nañu bàyyi di jaay oto doo doo wax ci Oumy Thiam mii. bala waaw Oumy Thiam mii moom du affaire am à la parce que jarbaatam bi Boy Town la te jox na ko rendez-vous mën naa am déglul émission bi dina wuyu que Oumy Thiam la tudd. waaw ah, loolu it mais jaaykatu oto yi laay wax. ci hmm. weekend nañ bàyyi suñuy jaay oto. di essayer ndek jox oto waa ji mu essayer ci kii sax ànd naa moom essayer bay gaare. mais kaay jaay oto ngeen dem essayer. nga wàcc oto bi di ko guider pour mu gaare mu wacce sa dom tek ci souf départ mom. bi ne mes ak mom ki nga ko wara a jaay. waaw loolu lañ ko def. xew di xew salaamaaleykum man alin Guèye laa tudd Nord Foire laa dëkk. Euh, dama amee benn 3008 euh, bii nii. Euh, dama ko gaara ci ci ci booru tali bi comme jaaykat oto yu bari ni ñuy def. li tax ma kii ko sax borom kër gi moom moo ma ñaan ni ma oto bi comme am fi ay fan. te kër gi dafa am ay locataire su ma sañoon nga déplacé oto bi mais xam nga comme ñun ay dëkkandoo lañu le fait que wax na ma loolu bëgguma nekk di traîner bi may dem di jëli oto bi euh, ci la waa ji ñëw ci la waa ji ñëw di ko ni ma fekk fekk ñaar fekk benn waay doon waxaale oto bi d'accord ñu mais waa jooju dafa dem rek mu daal di ñëw ni ma perdre oto bi day jaay man ko ah gisoo kii fi taxawoon léegi da ko doon waxaale ñaata lay jar man ko oto bi day wax dëgg yàlla 6 millions 500 laa koy jaayee mais ñu wax ba d'accord ci ci ci ci prix mu ne fan la yem man ko non 6 millions 500 bu fekkee sa bopp ngay jëndal moom 6 millions la yem mais bu fekkee da nga ma laaj commission il faut nga teg ci dara loo xamante ni yow dina la arrangé waaw mu ne ma non man jëndaluma kenn sama bopp laa jëndal dama yoroon benn Mercedes email jaay ko bëgg beneen oto. li ma fi yor matul matul matul matul matul montant boobu léegi damay dem sama kër dem jëli complément bi ñëw. Euh, dikk fay ko ma ne ko d' accord il faisait ay boobu ay 17 heures 30 moo jot léegi xam nga diggante boobu ak timis yi soreewul toog toog toog ba mu yàgg ba ñu noddu timis may dem di julli ji timis dem ba ci yoni ma sant ni man mi jappuma ma wagne wàññeeku ñew di japp ci après jakk ji taxawal ma julli fi ci kër gi ba paré dama tok ay 10 minutes rek mu woma ma ni ma père presque ma ngi ci koñ bi man ko ah waaw ma ngi ci buntu kër bi man mi de ngi taxaw foofu ma la joxoñoo ne fa la dëkk mu dal di ñew ni ma légui bala muy guddi nañ dem def tour euh, comme ça bu ñewé dañuy régler ci ben yoon rek ma ko d'accord amu problème ma dal di taal auto bi man ma taal auto bi ñu and sama ben set nek ci ginnaw mom mu nek ci côté droite après ma dawal ñu dem bi ñu demee ba Mermoz bi ñu demee ba Mermoz euh, mu ni ma. Euh, ci pont bi de premier pont boo jógee dakaar di dugg si VDN bi. waaw xam nga foofu boo fekkee da ngaa bëgg dellu si waa kii suufu pont bi ngay jaar wër jëlaat jëlaat VDN bi waaw mu ni ma léegi may ma dawal retour bi man ko amul problème ma wàcc dem ci côté droite bi moom mu jël côté gauche dawal wax dëgg yàlla mën na dawal nag léegi bi ñëwee ba ci buntu kër bi sama dëkkandoo bi comme ni mu gaaree woon xawul jekk te du ma ko woon naakaan redresser sa oto bi léegi loolu du rafet léegi fi ma wàcc nag di ko guider pour mu arrière pour mu arrière bu baax ba dugg ci ba bàyyi koñ bi man daal dama wàcc rek mu ne sama set bi xam nga comme bàyyi woon naa ko distance de 3 mètres ci ginnaaw mu ne sama set bi wàccal xale bi ni ko ah port bi dafa sérité ah mu daal di ubbi porte moom moo ubbi port gauche droite bi xale bi waa jaar foofu bi xale bi teg tànkam avant muy wàccee deuxième pied bi rek. gëdd na oto bi départ mu daal di dog tali bi rek xam naa dafa foncé sax parce que heure boobu heure descente la dafa foncé am na ñoo xam ne bu ñu la gisee nga engagé benn façon bi dañuy freiné bàyyi la nga jàll mu daal di tourné daal di jël góos rek dem jël tali tali armée yi ku bëgg a xam li ci topp altine incha allah nu waa ji mujjee akub sàccam ñu dem ngaaw